avant en 2022 le coin de ak ak li nga xam ne parti socialiste euh, pour ñu daal di boole seen doole daal di ñëw euh, ñëw exactement daal di euh, faj jafe-jafe askan wi seen wàllu ko nekkin ak seen wàllu doxalin par la suite le leader de taxawu Sénégal di ki nga xam nekk moo di Khalifa Sall nag moom nee na opposition lay daal di des te itam dineen amal li nga xam nekk moo élection législative lu yàgg du dara itam engagé wu na pour dassi si barba bu baax baax pour li comme des coalitions moo coalition daal di am li nga xam pas mal et ay député si vous aussi li nga maudit les partis politiques politique waaye tam yéen mouvement politique ak aussi yéen composant euh, ñu daal di ñëw rejoindre ko daal di ak mom euh li nga xamné que modi justement peut-être l'objectif fexé euh ba ñu am ben cohabitation forcément si ko pencub na réew alors afan Khalifa Babacar Sall euh, jamono jii euh, ma ni euh mi ngi écarter toute alliance avec l'actuel régime là c'est clair et que c'est évident mais avant coalition bi muy préparé pour l'élection yi est-ce que concrètement bien un risque si nous nga des ne euh, majorité confortable ni préparer coalition demandant tout euh, mouvement ak li nga activité politique d'aller rejoindre. je ne comprends pas ta question. Yo coalition euh, Khalifa Khalifa est-ce que bien le danger quelques li euh, jamono bii ñoom ñu bëggee benn majorité pour jàllale sen ay loi mais ñi ñi ngi bëgg instaurer benn coalition coalition ma ñëw ma ñëw ma ci ma la coalition de Khalifa Sall ak lu mu mënti doon mënul créer un danger quelqu'un qui n'a même pas 1% aux élections comment comment non non non non yow man dag may déglu man ne da may déglu quelqu'un qui n'a même pas 1% aux dernières élections comment il peut poser un problème à un régime qui a battu au premier pour, pour la première fois un opposant Khalifa mënul am Dole boobu ci coalition ak lu mu mënta jël ci Sénégal mënuñu am coalition bu mel noonu mënul am le pacte est rompu gis la confiance la confiance est rompue diggante Khalifa ak wa coalition Diomaye président wala wa PASTEF dañoo amone quoi non quoi non le monde a am confiance confiance bi jehna Barthélémy Barthélemy yàq confiance bi ça y est c'est fini. oui c'est Barthélemy ji Barthélemy Barthélemy c'est le. le doigt à Barthélemy c'est le marron du feu de Khalifa Sall c'est le marron du feu de Khalifa Sall il faut que ngeen xamé ko si tout va bien c'est Barthélemy Moko défar si tout va mal, c'est encore lui. Oui, Mokoyak. C'est le marron du feu de Khalifa Sal. C'est le bouclier de Khalifa Sal. te Barthélemy Diaz Bobo. moo yak digante Khalifa Sall ak la coalition de wala ñoom Sonko Barthélemy Diaz moo yak digante bi Khalifa a beau recoller les morceaux il ne peut pas Khalifa Sal a beau recoller ces morceaux là il ne peut pas hmm. te jéemoon monaco ko hmm bu demee fii ba Touba sax ci kilifa pour ñu juboo du parce que c'est les sénégalais qui l'ont sanctionné C'est les sénégalais qui sanctionnent Barthélemy juum une fois sénégalais non il peut se racheter mu deux fois trois fois allez c'est fini mu yàq lépp mu yàq lépp te Khalifa munul ne Barthélemy yaa li ni pas d'accord, il ne l'a jamais dit pourtant il savait que Barthélemy Diaz il a préféré là je suis d'accord avec lui hein, il a préféré soutenir Barthélemy Diaz publiquement au détriment de l'autre coalition yéwi Askanui. en sachant que Barthélemy Diaz Mungi Yak la coalition yéwi Khalifa a Khalifa au lieu de dire Barthélemy Diaz basta arrête M'ou soutenir Barthélemy Diaz publiquement Tu sais fan la ñuy Khalifa Sal quand le, quand le responsable de Pure, comment il s'appelle hmm. euh, Youm. Cheikh Tidiane Youm. Hmm. Quand le responsable de PUR, ba me demee ci émission Maïmouna Ndour Faye di weddi Il y a y a un sénégalais yi. Khalifa a appelé en direct. En sachant que Youm, le gars Yum, c'est euh, il fait parmi des, des, des cadres leaders hmm. de la coalition Yewi Askan. Tu vois quand il parlait ci émission de Khalifa il ne l'a jamais dit Khalifa dafa ouate dit humilier Youm au détriment pour défendre Barthélemy Yaz, en sachant que Barthélemy Diaz est un kuy yak? un homme. koy ne un ngi Il bi voilà ce rapport de sincérité entre Khalifa Sall et Barthélemy Yaz. Khalifa a observé trop de Barthélemy Diaz parce que dafa am lu il a peur de perdre Barthélemy Diaz. Khalifa Sall. Hmm. oui dafa yakar ni bu waxone Barthélemy Diaz ci moment de deug Barthélemy Diaz prend la tangente. mu dem mu instant bi dafa mairie mais bobu kessé la yakar ni. ak mairie ak mairie Padoa. kan mo fa Madiop job Madiop job mo nek Padoa. Grand Yoff voilà Grand Yoff la bëgg hmm. Madiop job mo nek Grand Yoff ñaari maire yooyu la ñuy am la coalition Khalifa président. ak aussi ñoom moom tamit euh, Fass Gueule Tapée Colobane. ok d' accord euh, ñoom aussi euh, maire bu Dakar. d' accord d' accord d' accord non non déedéet. Ah, Alioune Ndoye bokkul ci ñoom Alioune Ndoye bokku ci ñoom. alors donc pour te dire que. Hmm. Khalifa moment bu mu war a wax Barthélemy Diaz dëgg il a décidé de se taire. coalition exactement. la coalition euh. il faut bëgg a Ça dit à que faut qu'on nga des de jeunesse sénégalais pour nous ramener que même bu ñu ko bëggee jamono bii nii mënatul nek hmm. entre Khalifa et Diom et la coalition Diomaye président. mënatul nek diggante bi ñaaw na ba pare. en tout cas du élection yi de ces années là à venir mënul nek parce que Khalifa nous réparer ce que Barthélémy Diaz a a a à détruire. Ce que Barthélemy a détruit, Khalifa ne peut pas le, réparer. Malheureusement, c'est Khalifa qui l'a choisi ainsi. clair. Quand euh, Barthélemy, coalition, il fallait l'arrêter.